Malick Diop xamul sax lu muy def parce que ñi ma doon xool ñëpp maa ngi leen di xool après mu jékki-jékki ma ne ko tànn bi ñu daal dama bëggoon moo Diop si mu nekk maire bi waaw. si ñaar bi. waaw waaw xarit la sama. mu ne ma mu ne ma waaw euh, man taalibe la ma ne ko waaye taalibe tamit da ngay liggéey xanaa bëgg la tam planté ay arbre une personne un arbre. non si si bëgg naa mais maire bi moom mooy mu ne ko non may ma ñaanal ma moom moo mosoon fi ñëw ma ne ko man dama bëgg sama sama maam dëkk bu mu nekk biir lumière la biir faax sooy agsi war nga am looy sa xol parce que sooy soo koy jug da war di def addiye balaa ngay aj man noonu laay ma déparé ba mu agsi biir waaw kon nag loolu li lay motivé waaye nga nga xam ne yaa ngi jëm ci biir boo xamante ni sa léppay éclairé wu loolu nag bëgg naa benn rond moom bi ñu toog am na ku ma ko wax koo xamante ni sama ñu ngi fi mais wax naa ko mu ne ma waaw mais yow mii dama lay dama lay dama yàlla jàppale la jox ay partenaire parce que tamit suñu la falee tamit da nga war rek commencé liggéey war nga am ay partenaires yu ne ci biti ñoo xamante ni dañuy bëgg ñoom tamit yàlla ci barke moom Alaaji Maay man loolu rek laay wax sant yàlla daal laaj parce que loo waxoon di ko ñaan yàlla yàlla indil la ko ah boo sant yàlla toog te itam li sëñ bi wax rek doy na sëkk comme Mokhtar Kébé li mu wax tamit waxaale nañu parce que dañ koy def étape par étape lépp du koy sotti mais dañuy dénk lépp yàlla jàppale la incha allah mais li wér nag suite ak kàttan sën na ci xel ki ñaan ak koo xamante ni jàppkat yi say collaborateur ak say collaboratrice ñoom tam yàlla may leen xel ak sago ak doylu ak ngor bu mat sëkk dafa dafa tëdd la mu fa nekkee woon ba am njabootam moom tëdd foofu ñi nekk ay artisan nar a taxaw pour liggéey yal na yàlla dundal bopp. waaw yal na yàlla dundal bopp leer dafa teg waaw ndax moom ñu ko waxee suñuy doomu bàyyi dana suñu xarit la comme ni ko sëñ Maodo waxee ca sëñ Mansour te ñun dañ leen di suivre waaw xam nga man dama la wax toujours ni président nekk président tous les Sénégalais bañ a jéggi waaw li la wax rek ni Mokhtar waxee doléance la. ngay wax tolérance nga ni waaw baax waaye dañu dégg lépp yàlla ak itam tax ku liggéey la waaw yàlla def ay ouverture yàlla na ko yàlla def. amiin waaw ñu ko koy ñaanal bu baax. amiin si suñu biir xol si sant yàlla bu baax nag. kon si la sant yàlla bu baax. ñoom. donc waaye alhamdulilah rabbil alamin